salaamaaleykum waa euh, euh, sama waa télé xibaar 221. Euh, tey jii muy foire bi njëkk a ñëw pour waxtaan ci càmm gi. ñu desanteeg yow tey alelo lan ngay sànni ci loolu bala noo dugg ci xar waaw jërëjëf euh, Modou Baye Fall maa ngi lay nuyu rek di la siyaare di nuyuwaat ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel li nga xam ne moom mooy émission càmbar càmb gi ci seen de télévision bii nga nekk. fii nga ñëw nag moom mooy bergerie bi nga xam ne moom mooy bergerie ci la war xoox. bergerie ci la war xoox suñ ko waxee ki nga xam ne mooy propriétaire bi nekk Samba mbay nga xam ne su ma gisee dootu yëkk dara ci ay kàddu daf naan ma lépp yow la. moo tax ñu dugg di ko présenté ñii ma jàkkaarloog boo mooy ay waa këram la. kenn ki Mariama Mariam la tudd nekk soxnaam nekk nit koo xam ne bëgg élevage lool waaye bëgg sàmb parce que fo sàmb yëkkatee xar yi rek mook moom ba baa muy jeex waaye fi nga dugg daal mooy bergerie ci la war xoox waaw waaw mais tey nga téye ndaanaanu doy waar ndaanaan li mooy kan. waaw kii mooy passeport. passeport nga xam ne maal la boo xam ne réew mi yëpp ñu ngi koy wër. passeport nekk doom Picasso. waaw ko ku ne xam ne ni Picasso kenn dootu ko présenté. ci réew mi parce que boo xoolee moom ak Mourid Sadikh ay seexlan. yàlla dogal na Picasso ki nga xam ne moom mooy baayam. nekk Saalum Saalum te boo waxee Saalum rek waxaat ki nga xam ne moom mooy Moos to boo waxe Moos da nga delluwaat ci ki nga xam ne moom mooy Algoor. am na solo bi yàlla dogalee Lamine Diagne juddulu ko. woo Samba mbay mii nga xam ne mooy yeewoo Malika jox ko ko mu yóbbu ko bergerie ci la war xoox hmm. mais tey ji euh, euh, Alé mu ànd ak njabootam euh, ki nga xam te ni maal bu doy waar bi nga xam ne doomu Picasso la bàyyiwul ci moom dara jël maamam bi nga xam ne mooy Morse wax dëgg yàlla def production bu doy waar ko xeetu Saalum wax taar wax doole wax li nga xam ne mooy auteur ndax loolu ku ko wax rek wax nga élevage lépp mu ànd ak production am ñi mu àndal nii tey jii ay doomam lan wala lan. waaw boo xoolee kii doomam la mais boo duggaatee ca boog sa la fa nekk lépp ay production am la la mais gis naa ci benn mbote boo xam ne kee war nga koo jël. parce que mbote bi ni mu taaroo ëpp na. waaw rek la toll. waaw jëlal mbote bi ñu xool ko xoolal mbote bu doy waar bi nga xam te ni doomu maal bi la. mais allé loolu daara jëlof nga téye bu mbote bu doy nii nga xam ne ah, au moins mi matagul. lan nga yëg ki nga xam ne mënoo koo téye ale loo lan nga yëg fan la élevage jëm. bi ma koy gis booba Samb ñëwagul. Ah. mais bi ma ko gisee. Ah. bi mu ñëwee moom laa ko njëkk laaj mu ne ma doomu Picasso doomu ki nga xam ne moom mooy passeport la. te boo waxee passeport rek da ngay delluwaat ci Picasso. mais mbote la boo xam ne éleveur bu ko juddlu woon. Ah. boo moytu félicitation ngay dégg mais moom mi ko juddlut mën na cee am lu ne ëllëg. dëgg la mhm. mais tey jii nga gis élevage fi mu tollu ku wax mâle di nga wax femelle mais tamit wutul mâle bàyyi femelle femelle yu doy waar yi nga xam te ni moom la exposé fii boole kook maal bi est-ce que tey jii juum na moom non non juumul ci yoon wi la nekk te yoon wi ku ci nekk doo laajte fii fan la beneen bi ci doolee ko mooy li ko may sans Seydi Laay moo ko dalal Malika ci wàllum élevage moo ko ci dugal moo ko ci jàppale moo tax am naa yaakaar daal sàmba fii ak ñaari at ku tudd élevage yu réew mi da nga tudd bergerie ci la war xool mu ngi noonu bergerie ci la war a xoox mu ngi noonu numéro téléphone bi di 77 218 47 96 beneen numéro bi di 76 927 78 48 mu ngi noonu euh, wax dëgg yàlla mais alelo am na solo.